wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا بشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن يعملن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhaalika yawmut taghaabun wa man yu'min billaahi wa ya'mal saalihan nukaffir anhu sayyi'aatihi wa nudkhilhu wa nudkhilhu jannaatin tajrii min تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا dalika amrullahi anzalahu ilaykum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ورسله فحاسبناها حسابا شديدا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها wa kaana aaqibatu amriyaa xusraa a'adda Allaahu lahum adaaban shadiidan fattaqu Allaaha yaa ulil albaab alladiina aamanuu qad anzala Allaahu ilaykum dhikraa رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله أن الله على كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من قالت من أنبأك هذا قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار يوم لا يخزي مولاه النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون عملي ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجا فنفخنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين صدق الله العظيم